sunu dundal weeru koor tey ñu andi ci ay soññee di wax ne umati nañ umati nañ waxoon naa fi ne umaat nañ waaye umati nañ koor moom ñetti kumte képp la ndax ñetti fukk la kon nag fukk yu mujj yi ah, eh, tey jii la tàmbali yàlla na sunu borom may ñu àggale ba fekkee yeneen yu bare bare bare tey àggale tey man tey tal tey def ci ngëneelam tam ñu nangul ci barke bu Cheikhul ah mbokk yi mel ni weeru koor yàggul ay fan rekk la yu yu yu yu néew a eh, te boo umee umaat umaat moom daanaka weeroo moom dal na lay tàggu wan la gannaaw kon lan lañ ci mën a jàngee ci ñetteelu kumte li wala ci kumte lu mujj li mooy yokk farlu bañ a bàyyee ndi ko ah sama classe gi nag ñu bare bari bu weeru koor agsi moom danañ ko song ak doole buy doog a agsi bu doonee gan maanaam buy doog a andi di wàcce ay bagaasam lu ne danañ ko ci man ci jaamu yàlla ak lu ne waaye dafa mel ni bu ñu umee umaat rek dañuy daal di wan gannaaw koor gi day mel ni daal ña nga ca koor gi léegi waaye génn nañ ci koor gi te koor gi jeexagut des na sunu borom tabaraka wa dafa teral xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teraanga ju ñoom rek ñoo ko jagoo muy wutal leen ay waxtu wala ay weer wala ay guddi yoo xam ne nii mën nañ caa màng yiw woo xam ne nii ña daan dund ci xeer yu njëkk ya nangi mi junne at dawuñu ko màng te weeru koor da cee bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis hadisul si boo xam ne nii suñ borom day wax ne suñ borom tabaaraka taala moo ne lépp lu doomu aadama def moo ko moom ba mu des koor koor moom maa ko moom te maa koy fayal sama bopp nga xam ne waxee ci alquran sax ku def benn ñu fay la fukk man jaa bil xasana falahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayya fala bu dee weeru koor moom dootu am lim moom rek moo xam na mu koy fayee ndax moo koy fayal boppam waaye weeru koor it fukki fan yu mujj yi moom da ci ëppati doole moo tax ñu jëlee ci sunu yaay Aïcha mu nettali na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day euh, weeru koor masaana ñëw daraan farlu farlu goo xam ne ne daaw ko def ci weer yi yudul weeru koor waaye fukki fan yi mujj nag da ci daan yokk ak farloom farlu goo xam daaw ko farlu ci ñaar fukki fan yi ko jiitu an Aïcha radiyallahu anha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fi ramadana maa laa yajtahidu fi xayri wa fi l ashri awaaxir minhu maa laa yejitaadu fi xayri rawaaw muslim te mbokk yi day seytaane bañul ku tàmbali waaye ku àggale lay bañ te Sëriñ Tuubaa day wax ne rikwaay na farlu lool eh, ci àggale lu baax maanaam boo tàmbalee lu baax na farlu ci àggale ga ndax la ci ëpp solokat ca jeexantal ba lay nekk moo tax mu wax ko ci nax ju ne waj tayi da na dahara fii isalihi fa inna wasal fihi li fii ikmalihi rafetug jëfkat maa nga ca matal ga kon nag jàkk yi ñu songoon wala bokk naafile yi ñu songoon ak yu baax yi ñu songoon ci jàng alxuraan tudd yàlla jàng xasiida dimbalante di sàkku tuyaabu di sàkku ay leer loolee nañ ko yokk buñ jàpp mukk ne koor gi jeex na léegi ñi ngi ci pro ñi ngi ci ñi ngi ci programme kor yi loolu buñ ko jàpp te lu ci bare bare fukki fan yu mujj yi ngëneel yi ci nekk bokk na ci laylatul xadar lu ci baree bare dañuy raw ndax dañuy daldi ñun nekk ci koor gi koor gi nekk ci sunu gannaaw te loolu nit ku am xel ku yeewu du ko def ah sëriñ Touba sunu yaakaar de moom wax dëgg yàlla bu ñu xoolee weeru koor andi naa ci lu bari ci tàmbali bi sax waaye weeru koor lim ko jaraloon ak fam ko tolloon ma ne su koo wax waaw ma koo wax nga xam ne ni bu demee bay toll ci jeex da ngay gis mu yërëmtalu bu busharaati bil ayaati wa suwari li chat bi ak bi kaw ni abdal muhsini suwari maanaam day mel ni kuy yërëmtalu di dàggutoo ak gan goo xam ne nii kat bëggutoon mu dem te mu mel ne bu demee it da koy gëj gisaat maanaam dafa yàggat balaa ñawaat moo tax eh, ñu war a gën a góor góorlu bu baax a baax yal na suñu borom defal tawfiixi ñu bañ a wàccandiku bañ a dellu gannaaw bañ a yokkat bañ a wàññi lañ daan def ci ay yiw ak tuyaaba ah, ñoo ngi sant bu baax baax baax mbokk mbokki jullit yëpp di sant mbokki taalibe yi bu baax ci rawatina ñi nga xam ne ne ñoo ñuy jàppale ci liggéeyu daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ah, ñi bokk ci association bi ak ñi nga xam ne nii ay bon volonté la ñoo xam ne nii kat bëgg nañ seen dara dem ci lu baax moo tax léeg-léeg ñu yónnee seen dara ngir ñu defal leen ko ci liggéey bi ba tax na liggéey bi fii mu toll yéen a ko fa tolloole kon ñoo ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala ci barkeb weer wu tedd wi ak guddi yu tedd yi mu defal leen tawféex defal leen wërsëg wu yaatu ak jàmm jàmmi àdduna ak àllaaxira defal leen sutura ak ndimbal ndax sëñ la daan wax na ku yàlla sutura kel ku yàlla suturaal kenn du la ma ku yàlla suturaal